<laughs> donc gis nga actuellement musique bi ni muy demee damay damay damay sax gis nga Wally ak Pape Diouf. donc ni leen fans yi du ma ne fans yi sax mais dama naan ñoo ko def seen bopp parce que dama naan doomu aadama lu mu nangu ñu teg ko rek moom la neex donc ñu gis ñoom ñaar instant bi waxante bi defante bi donc dangay dem ba doo comprendre quoi. waa xam ma man parfois sama wax du neex. parce que Sénégal wax dëgg lañ ma xamee. xaw ma tricher bëgguma lu hypocrite mais jàmm lañu xam te showbiz ñun ñëpp ko moom ñu ngi seetaan nag loo xam ni peut-être comme mën na ñaaw mën na ñaaw bi mooy ah, peut-être ñun ñi nga xam ne ñooy waykat yi ñu war a wax waxuñu li ma ci gën a metti nag mooy dañuy faral di véhiculer naan fans yi ñooy seytaane ñooy jaxase tout le temps ñu ngi insulte fans te defuñu dara fans dafa sonn fans yegul tinul ci internet ak lay gis day jek jek gis luma commentaire mu commentaire gis duñu bind mu commentaire kooku fans bi tok kërëm liggey liggeyam wacc ñu déglu son wu Soriba wala son wali wala son pap Diouf e, talul dem di def ay ay affaire gëwma lolo lima gëm moy muy di Diouf Waly nañ may seeni fans jamm parce que li tax ñu war leen may jàmm mooy mënuma comprendre muy waali di Pape Diouf pourquoi ñu yéene seeni fans di rayanté té ñu nek ay porteur de voix ñu wara défar wara war a indi jàmm buñ Sénégal buñ leen nax man limay wax du deggulo ci man buñ leen nax bu leen nangu ñu nax leen comprendre ñom ñaar buñu bëggoon jamm dès le début buñu wax seen concurrence di bind lu ñaaw di ñi dañuy conquérir lañuy génn ñom ñaar kottante wala ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar suñu fans ñun ay bon exemple lañ ñun dañ leen di woon exemple bu baax pour xalé ñun ñi nga xamni ñoy seen i rakk ci ginnaw comprendre nga ñu mëna jaar ci seen tank waye ciow li ñom la neex ñom ñaar la neex parce que bëgg ñoko xëc léegi imagine toi Fans ak Pape Diouf bu ñu dajee ci mbedd di werante ba ñu saagante ñu xeex ñu àtte leen kenn dem jël paaka ñëw jam sa moroom mu dee. kan moo ko indi est-ce que ñoom ñaar bu ñu joxante woon loxo kottante boo ko ànd son wane un bon exemple ini jàmm def ko rien que pour seeni fans est seen fans danañ romb di xeex kon ñoom yéene wuñu seeni fans jàmm tey bàyyi ba affaire bi ëpp loxo ku ci nekk génn di wax c'est faux. man gëwuma loolu nañu bay di xéxanté suñu biir affaireu tapet la dañu wara bolo ñu and dem ak wa bitim rew artiste fa nek indi drapeau bi suñu rew parce que barki dem dama dégg euh, sama grand comment dire abdou kité sek wax lu mel non mune da ngay timalé ben euh, artiste micro laaj ko mu nan la ñun artiste yi ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi fekk né loolu du dëgg waaw parce que amna ta dañ gëmul yalla lepp ci bokalé la mm-hmm. ñàkk gëm yàlla sax ci bokkaale la mm-hmm. da ngay jàpp ni kii bu demee yow doo dem mm-hmm. te yàlla moo ne allah ku lee sa wër wërsëg ngay lekk te ñi fi gën a ëpp làmmiñ nag di wax ay tàppet lañu ci média la ñuy nekk di wax rek mm-hmm. parce que man gisuma mu nekk yëf yi góor yow nga ne yow nga war a jël marto dem dóor ci àll bi ñëw indil sa dëkk mais non ku ci jug léegi xoolal musique bi dañ ko changé léegi ku ci am benn single wala benn album sa woy bi ci topp gaaruwaale lay doon dañ may xeex mm-hmm. wala sama noon bi wala sama nàngam bi mm-hmm. wala sama muy Pape Diouf muy waal yi mm-hmm. maam góor jësaa kay waxi nopp ci ñoom ñett lay tourné nañu may jàmm may ñu aafiya moomuñu Sénégal moomuñu showbiz bi sama wax neexul comprendre maa ngi jégalu nak ci ñi fans yi mhm. mais tamit il faut il est temps ñu sori fans bu dégg li nga wax ni muy fans wali di fans pap Diouf ku la dégg dina xamné yow jamm nga leen bëggal quoi jamm mm. nañu yéene seeni fans jamm seen fans bu ñu reyantee jamante paaka jëm musique bi day yaqku léegi kous ku sa ku sa ku ni yaangi bëgg way sax mu ne la demal tok ne dañuy ragal parce li nek ci biir mm. kenn yoru wërsëgu kenn demal ci serigne ar comme arenu lamb wut bayre musu ci chat ar sa bop bul def kenn lu ñaaw. bul ne damay yàq carrière kii war damay wax loo xam ne pour jaxase kook Sénégal yi lan déedéet. parce que yaa ngi def def loo xam ne danger la. enjeu bi mooy tey comme li ma expliqué. billaay ñu ngi fooyee lu garaaw. dëgg la te ëllëg buñ bàyyi li mu dem di nga dégg ni fan su Waly wala fan su Mame Goor wala fan su Pape Diouf. jamante nañu paaka. te loolu boobaa ñoom ñoo ko indi parce que ñoom ñoo ko bëgg. Mm-hmm. parce buñ daan def comme xoolal suma papa Youssou bañ wootee Bercy dafa rafet ñu kottante joy xool suma papa Omar Pen ak Youssou Ndour bañ defee son uti joy te dama dan gis ci baba mal ni mu wax ni mu ni mu mel ak tion seet aussi dama daan gis xolu ismaïla lu ay samba jabaré sambu sunu mamé nga da def ben zaaru tab rek tok waxtane ko billahi waxtane ko ba ci serigne touba mais ñun mënatu nañ am lool ko ci suñu jamono joy mëso gis ñu né fans diw ak diw jamanté nañ wala rayanté nañu pourquoi ñom ñet rek nekk suñu bis bi kii kii kii nangam kii nangam kii nangam fatt ñu mais ñu jàmm musique bi billahi way c'est pour faire plaisir billahi way billahi américain sax defatuñ légui da ngay dem ba sax da ngay ragala dem boîte que ni légui boy dugg ci boîte bi dañ lay door ay safara euh, li li li sama grand di wax buñ la waxé artiste bi jaar na fi tay nga né yé wiril safara la fi doon def ci wala donc day dem ba musique bi ñu doon déglu mu daan ñu bégal daan ñu neexal suñu xol da fay dem ba eh, eh, lambale do fekké wumako wax deug yalla man do duggal yoy fekké wumako té téguma ci sama bëtt euh? yaa ngi dégg mm-hmm. parce que gars yi rek fii lañ ko bàyyi kuy tëgg soirée bu la neexee nga dem wis pour soirée bi saf xorom wala yàlla musal la ci cat wala xuloo bu mu fa am wala xiiroo wala ŋaayoo mm-hmm. loolu amna, na ku dee ak sa bàmmeel lu waaye def tout se paye dans la vie mm-hmm. lu waaye def di nga ko ak borom ci lu baax muy ci lu maan wala yàlla na wax fa man yax melis xaala zaratin xeeran yara woon xamal mis xaala zaratin sharan yara loo def ci lu baax mu bëri bëri mu tuuti tuuti mm. dañ la koy fay loo def ci lu bon lu mu bëri lu tuuti tuuti dañ la koy fay du dëgg mais man fi may waxee mooy man ñoom nañu rayante boo leen romboon fi ñu reyante duma ma àtte mais waruñu yéene seeni fans ñaari camp yi bu ñu dajee ci mbedd ñu jamante paaka dee loolu ñoom ñoo ko indi mm. te il temps esprit sénégalais yi changé nañu bàyyi bu ku ci njëkk a jekko rek ki nekk sa réew ngay njëkk a xool pour dóor ko kurpañ pour rayanteek moom déedéet dañ dem rayanteeg ñi nekk bitim réew duma leen indi drapeau bi fii ñun ñu booloo doon benn ndax mbooloo mooy doole solidarité bàyyi xaritoo bi ci biti tey xaritoo ñun suñu biir ñu bokk ndey bokk bàyyi wane un bon exemple bon exemple bi mooy artiste ambassadeur du équipe bu nawetaan du mbëru làmb du du dara artiste ambassadeur la da nga war fekk ñaari dëkk yu tas nga boole leen ñaari équipe nawetaan yu am problème nga boole leen ñaari mbër yu xuloo nga juboole leen fekk doo musa doo bëgg di fekkee luy ñaaw parce que lépp luy génn sa gémmiñ wala looy wax na doon lu rafet te loo nar a fekkee muy ñaaw rafetal ko mais dès le début njëlbeen ba site internet di bind concurrence pap Diouf Wali sa ci lañ waroon jug ñoom ñaar ne ah li ram ci nag bi la jëm pap ne wali suma rak la ne pap suma grand la te suñu fans ñun ay exemplaire lañu ñun ay monument lañu dañ leen won ni jamm am sénégal ñu dem ku lokanté photo won ko ci internet bi ah ñun ñi kat santu ñu leen ngeen xulo de parce Yun ñun xiro xiiroowuñu waye ku ci nekk dafa tok sa ruk di muy di gëna yok ampleur bi ñu naan ñay defante ki fessal ak soirée kii feesal kii tëgg bersi te ñu sax Afrique dañ waxtaan dëgg suñu papa Youssou nduro ngi ni toj monde bi te doko ko dégg ci dara ton Seck def na fi lu nekk doko dégg ci dara Ismaël lo baba mal fiñu tok ci monde bi ñaar ñi ñu fa te do leen dégg ci dara kon il est temps ñu jamm may seeni fans jamm parce que fans yi sonu nañu dañuy nekk ci internet bi di desa nday boy lire dañuy saagante nday di xiiroog di ngaayo ki nan bu mala jappé ba mo xaté li ñaan ñooñu buñ dajé rayanté fa lañ jëm ma ngi jégalu nak budé kaddu yi may wax amna ben erreur matuma xalé la waruma wax sax wax deug yalla amna ñuko mëna régler waye dama bokku ni rek waxewuma en tant que artiste waxewuma dama wax en tant que doomu sénégalais ak ku nekk ak sa gis-gis sama gis-gis nak mu nak mu na djoum parce que xel dafa gatt te matuma maa ngi jéggalu sénégalais yëpp. mu nekk message bu am solo boo xamante ni si Soriba li nga wax lépp téere la ñi war a wax waxuñu ñi war a wax ñu ngi toog di seetaan mais nag fu mu mënti egg rek ñaari doomi penda naar yi ñoo ko fa eggale muy Pape Diouf ak Waly li sori baa wax rek yërëm leen fans yi ngir yàlla ngeen toog warewaat un bon exemple bokk ndey bokk baay ngir Sénégal mën a jëm kanam mais ba tey sori sànq fi ñu nekkoon ci le treize bi dama bëgg ñu répété waat ko parce que dafa mel ni dafa am lu ma ci lu ma ci rëcc ci sànq comprendre donc mu di ne ñu ngi préparé benn février nga war ci ànd ak waa euh, comment dirais-je euh, Dollar Events ak waa Elvision Média donc ñu ñu ñu jàpp ko mu nekk date boo xamante ni si euh, date la bu àdduna di xaar date la bu Sénégal di xaar donc Soriba lan la ñu mën a wax ci date boobu. xam nga boo nee Soriba ne Dollar Events comprendre nga ne Elvision Média loolu leneen la. Mm-hmm. billaay collaboration beneen la. parce que ay étant jeune ñu indi projet projet ñu ko suñu projet bu ñu la jëm Gabana club ci Maria c'est extraordinaire dama ne mhm. dinañ ci facette mhm. wayli wayli kora bi mi ngi dina dinañ fa mosuñu koo gis ci àddina. dafa mel ni baa dafa takku ba mel ni takku naanaa li mu dencoon lépp doon ko eh, def ay single ak ay kii dafa mel ni Kavana club la ko bëgg a njëkk a wane le treize quoi dafa mel ni Sori eh, eh, dafa bëgg a échauffé wu waa xam nga xam nga xam nga mbër. Mhm. bu entraîné ay at. ñëw foofu mu wane dooleem. dëgg mu wane foog mu foog. waaw xëccal xëccal moom sànq dama bëggoon a bàyyi ba ci kanam sax ñu laal ko moom. moom moom mooy Kora. bii mooy Kora ndeysaan. dégg nga bëgguma joué nag. non may ma rek dafa war a neex. <laughs> bilaay tey ngeen dégg-dégg ak El Vision Média tabarkala télé bi nga xamante ni tabarkala dafa xew si jamono àdduna di ko wër tey nag ñu ñëw toog ak ndaanaan li ñuy wax Soriba Koyaate tabarkala tey dina mel ni Masambal Mbasal acca